Liss ñu ngi lay nuyu. waaw man Cheikh man xam lu ma jaaxal ah. Hmm? li ma jaaxal ci ci ci ah. seen yaay bu gaañoo est-ce que di ngeen ko vidéo ne néew nit da koy wormaal yéen xàmmewu leen dëj xàmmewu leen dara journaliste yéen fu ne ngeen di ñëw ci àddina ba ci armée da ngeen di jël ngeen di jël ay néew di ko wane loolu dafa ñaaw nit nit dafa lu muy wormaal seen bopp lii dëj la lii lii ne du caaxaan. Ah, mais lii du caaxaan